boo amul jabar tamit nga waaw nga seere sa bopp xam nga voilà nga xam na ngay dundee sa dund ndax loolu baaxul moom luy aat na la lay jeex quoi xam nga. non loolu moom du yoon franchement parce que boo xoolee ñoom ñii ñëpp di ko def te jii ko ci nekk père de fami nga yaa ngi bàyyi sa famille euh, au besoin te tey doo leen defaral loolu noonu yëpp donc tey boo génnee jëlal benn xale bu ndaw comme sama genre yi appartement kenn bañu ko deux bon plus voiture xam nga def ay achat yooyu yëpp moom daf koy bëgg parce boobu noonu la yàgg mais jigen man je me dis que ni sa dignité warna la warna la jangal lu bari ba nga bañ ko bafoué wala nga bañ ko jaay ci all bi ndax ay auto ay voiture luxe parce que tay ñun ñep dañuy dem bay ko fi. dafa doy war trop doy na war trop ma sha allah da nga gis xalé yu ndaw ay bu ki yu am xaliss di leni financer di leni fat ta ñin moy lool xalé yu bari na ay 18 ans 19 ans commencé xam dom ta du yoon du yoon quoi xalé yu ndaw ño fi am dom di taxawalu man suma don man luma xalat ñoon ñoon so le mën mënta dimbalé da nga leen wara a ñi dam bay leen ñi dam quoi dara do jamm na ñoy jigen lu yak ndawam dafa yomb voilà ay ministère lu ne dal amul dekk bi dal yakuna yakuna kenn mënu ko jagal jël ay ndaw di leen fat di leen luweel ay appartement yoy loolu yeb day indi ay ki quoi yama gëna a xam so ka bu am barki démb est-ce que yaa comprendre loolu yep ay fat ay nit ay c'est-à-dire que moy loolu di len fay di len fayal ay appartement yaa ma xam loolu man dama japp ne loolu du du li jëmal jëmal jëmale réew mi kanam quoi. mais yeen tamit góor ñi lepp yeen la parce que tay yow bo baye sa kër dem utal ben xalé bu ndaw appartement tamit loolu euh, yaa ngi fayee sa responsabilité da parce que am nga dom bo xamante ne nii ëllëg bu ko defoon non yow du la neex nga wacc tok ci sa njabot mo gëna cool té tamit jigéen ñi aussi lepp ñun la. parce que suñu bëgg-bëgg moo tax gars yi di ñu amee ci facilement <laughs> suñu bëgg-bëgg moo tax gars yi di ñu am facilement parce que xam nañ dañoo bëgg oor dañoo bëgg xaalis dañoo bëgg oto bëgg appartement bëgg lépp loo xam ne c'est luxueux sans autant que ñu def benn effort. waaw ñun mooy loolu maanaam dañoo yor xaalis rek xamuñ ñu ko war a dugal rek xam nga di dem di yàq te te seen xaalis boobu mën nañ ko def feneen am ñoo xamante ne amuñ ñu ngi ci biir réew mi amuñ mais mën nañu xool ñooñu fa lañ ñu dem dimbali ji leen xam nga mais jël seen xaalis di ko yàq si mbedd bi di dam si ay xale jigéen di leen dugal jël appartement loolu nice du lu naay ah duñ ci jublu pour bànneex jubluwuñ si dara lu du yàqal xale bu jigéen bi ku ko gis daal du ko mën a jëriñooti comme ça waaw am na ñu xam ne dañuy am jawar bàyyi fi seen jabar yi te lu seen jawar yore la xale bi yore soo bëggee leneen ah foog naa sa jawar ji nga dem sa jàkk ja joxe fi alal ji weex fur waroo waru laa mën a bañal yenn yi wala kon xalé bi taxawaalu jugé sa dëkk ba amagul liggéey nga jël ko duggal ko sa auto daf ci bopam bi lu xamné musu ka kaa nga waaw di fayal appartement di jox muy lek sa yo bëggé karawaasi karawaasi doyna war dal lolou loolu sama sañon gaayen moy lolou mu dakk fi quoi parce que da ngay xol na am nga xaliss moy lolou nga jël ko xamanteni moy lolou gis nga mu taaroon naaj rek nga digay financer di ko kii saa yoo bëggee def loy def dem pour nga bàyyi ko li nga utilisé loolu lu rafet quoi. waaw ñi koy def nag bu yowoo ñu bàyyi li ñuy def parce que loolu amul njëriñ nekk lool loolu ñu ngi koy ñaar bu baax te nekk loolu nekkul loo xamante ni maanaam yu xale ndaw leen loolu mi ngi ñaawal ay mbir yu war nañ ko war a mën a ah, aussi parce que am nañ ci responsabilité ñoom seen doom na liggéey rek indil leen xaalis loolu rek mooy mooy li am importance su ñoom parfois duñ lijjanti sax. waaw boo amee yenn tur yi tamit am yenn mënuñu ci gaañ ci àdduna bi da fexe jël ndaw li nga jàppale leen ñu am job est-ce que a ngi comprend parce que Sénégal ben instant ni métti na métti goo xam ne quoi non pour man man loolu loolu loolu day rek man loolu la gis man parce que loolu mooy loolu est-ce que yaa ngi comprendre mooy quoi. Sénégal Labo. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal Labo et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal Labo, la chaîne des grandes valeurs.